sa premier combat suma ma juumee Modou nga ko bëreel ci club. waaw sama premier combat Modou Lo laa ko bëreel. mu nekkoon combat bu métti xaw na yàgg tamit. waaw parce que xam nga euh, classe boobu bi ma ciy dugg bi ma ciy dugg maanaam dama tawatoon. Mhm. mais danu fekkoon après Mbaye Fall. Mhm. moom moom la paa bi lijjanti woon mu nekk suñuy ménagère. Mhm. yàlla def. mu am lu bari Mbaye Fall ci biir loolu moom mu dox fa. Mm-hmm. may ko paa bi mm-hmm. jox ci sekkeen combat mm-hmm. jox ci Modou Awatine combat jox ci caat caat bu booy bambara combat jox ma ci combat mu jox ci Ikiri Grand Dakar quatre combat maanaam tey jii nit ki tey jii li ñu naan boo xamul nit nu mu lay def na mu la def moo tax tey jii paa bi ñëw bi mu ñëwee wax ma ne ma ah Gaston de jox na la ci combat bi kalaaf bi kii nii ma ne ko ah man de góor gi mën naa mën naa man ne ko man de dama tawat parce que boobu suma problème épaule bi problème mu nerf yu conseil quoi léegi bi mu ciy gars yi na ma il faut nga reposer mais nag làmb jooju dama ci duggee ak ay tawet boo xoolee ñu bëri ñu ngi yaakaar ni entre entraîné mais maanaam nair ak bokkul ak dara. parce que weñ boo waaw parce que booy xool defuma ci sax musculation bu bari parce que dañ ma tere woon lépp lu diis. dama doon xëy di dem géej rek euh, ay longue distance rek laa daan def yooyu noonu quoi. Mm-hmm. waaw mais. ngeen bëre. ñu bëree yàlla def Modou loo daan ma mm-hmm. mais damay sant yàlla rek parce que ci foofu maanaam man ci kalaaf laa commencé am ay jafe-jafe mais ngeen ngeen bëri mais ñu gis ni mm-hmm. xeex bi yow xeexoo mm-hmm. bëri woo moom moo doon dóor di génn non parce que maanaam man li ma buggoon pour mu répondre ma ci moom fekk si ma ci moom bëggoon ñu xeex mais Modou maanaam comme corps à corps ah, taxaw nii quoi waaw kii nii mais après Modou xam nga comme xeex boobu arrangé wu ko combat rapproché toujours Modou combat rapproché lay def parce que moom day jéem a jàpp kor xam nga dugal ay épricure yooyu lay def hmm. léegi nga ba man fi muy xeexee ak fi may fayoo foofu la moom Modou di di di di zongale quoi zongale waaw waaw yaa ngi dégg hmm. après ci la ma fekk man sama loxo mu ngi ci biir moom loxo mu ngi ci biti mënut amatuma appui quoi hmm. ma kiyee ni bi may cëppeel ci la ma long ma ma toog nga toog sa deuxième combat nga bëri ko ak Paul Maurice. waaw ak Paul Maurice. waaw loolu yëpp daal dama lay bëgg a wax ne nii. mais boobu dafa yomb. Hmm? waaw mooy li ma la rek. jafe-jafe yi dafa dafa feeñ euh, feebar yi yëpp dafa nekk foofu noonu parce que nit nit rek nga mën a doon mais comme jàmbaar man maa nekk nit koo xam ni tey jii même bu ma lu ma mënti dal mën nga ko bañ a xam man du ma doon nekk ci biir entraînement su ma loxo wàcce ma monté ko continuer bi ci biir classe bi entraînement daf may dal. si mais sa combat bu paase loolu ay am na ci ay yoon yoon. waaw am na ci ay yoon sama combat Tapha Gueye numéro 2. sax sama loxo dafa wàcc sama baa ngi fii bu la neexee moom la ko après son mhm. moom après moom loxo bi moo baaraam bi moo damm. parce que loxo bi mu ku bi mu dóor ci bopp. loxo bi dafa damm na. léegi gars yi ama pas face ak seen fexe. ñëw di kii nii mu ne après maa ngi gis ay ñoom euh, gars di wax naan ko non loxo bi dafa sumeeku ma ne ko ban loxo moo sumeeku xam nga na ma nii ma dóor gauche droite xam nga saala yooyu noonu mm-hmm. ñëw dugaat léegi mën na leen wax leen ak borom loxo bi damb boobu noonu loxo bi su doon sumeeku day metti wala du metti waaw parce que xam nga xam nga loxo bu sumeeku loxo bu sumeeku maanaam après day nagal boo ko dugalee boo ko dugalee loxo bi maanaam day day dee pour ñaata temps parce que dina diire il faut que mu def benn cinq minutes boo xam ni pour nga amaat force boo xam ni tey jii boo jàppee mu wóor ne li yow li nga jàpp ni yaa ko moom parce que day fekk ni fii après siditi lépp sa loxo bi day dee quoi. mais loolu est-ce que nekkul woon loo waroon faj wala du ñu ko faj ba mu normal. waaw euh, parce que loolu opération rek lay kii man yàlla dimbali na ma maa ngi sant yàlla dal na ma bàyyi ma defuma ci opération mais nag li ma li ma médecin yi doon wax rek loolu laa continué woon da ngay bàyyi lu diis di ko teg ci sa comme genre épaule yi quoi. te loolu mu àndul ak bëre. àndul kii quoi loolu moo tax quoi. sa troisième combat calaf waaw sama troisième combat si diggante Papa Sow Papa Sow combat boobu yàgg na métti na hmm. waaw waaw boobu parce que man ak Fass ñun ak Fass moom daanaka derby la quoi hmm. derby la woon quoi moo tax hmm. waaw papa maanaam moom it xëy na dugal nañ ci kalaaf mais comme gis na gaa yi kii ma moom tamit xëy na daf may xeeb quoi et puis moom moo nekkoon favori tournoi waaw moom waaw non moom Paul moom lañ joxoon favori ci ci kii bi seen seen kii. foofu moom foofu noonu kenn ku ci nekk maanaam favori nga woon. ah waaye moom doon favori de. Mhm. Ah. waaw mais mais xam nga dañu dem ba ci biir xam nga. carte gi maanaam ki ki njëkk a daan day am confiance parce que Modou bi mu jiitoo ci tournoi bi xam nga day am confiance. Mhm. waaw parce que tey jii moom mooy ëpp avantage tey jii mbër mu njëkk a bëre. Papa Sow daan kee ñëw xam nga kii daan kii kee daan kee xam nga li mm-hmm. après moo du ñëw jël raw gàddu bi quoi. mais Papa Sow moom digg bopp nga ko andil moo tax du du kuy métti métti. waaw waaw papa papa nag. Mm. parce que daf ma xeeboon quoi. waaw daf ma xeeboon te jooju dafa am loo xam ni tamit dama dem ba ci biir mu mu kii ma dafa am ñoo xam ni tey jii ñoo ma gën a ñaax. ci combat boobu. parce que dafa am ay wax yoo xam ne boo boo koy dégg rek danga nga war a rey sa bopp. yéen yéen wax la nga doon dégg. waaw xam nga ah kii Papa Sow da koy benn voyage la koy def quoi. Hmm. xam nga entraîné wul kiiwul nii. te c'est man boo gisee comme maanaam tey jii ni mbëri toll ba ma neexee ma toll noon hmm. ndax xam naa la ñuy naan xam naa la ñuy def. Hmm. mais maanaam man boo gisee Tapha benn athlète la man damay physique waaw tey jii bu ñu woon kaa ñu dem léegi. saaraba dañoo ànd ak yow ñu dem xanaa yow yaay sonn rek wàññeeku parce que tey ji mbër mu nekk tey ji ni nga mën a def ba rëy xam nga ko mm-hmm. entraînement mais nag boo ci boolee loo xam ne bokku ci mm-hmm. xam tey ji am na ci waaw parce que am na ci yoo xam ne tey ji maa ñoom ñoo nekkandoo ci làmb ji mm-hmm. ñii bàyyi nañ ñii màgget nañ wala ñii mënatuñu ndax lan ay jàngoro ko waaw tournoi boobu yan jafe-jafe nga ci dund claf waaw claf boobu mooy li mu la wax rek suma problème mu épaule rek moo ma sonaloo kese waaw parce que loxo mooy nit quoi. bëri nga ci mbër nga xam ne nga man tey sentir ma sama bopp. non man ci wàllu wàllu mystique moom ah wàllu mystique parce que daaw ma ci sóoraale mbër indi loola neex ci làmb ji defal loola neex parce que man li nga indi man gëw ma man li ma yor laa gëm man li ma yor laa gëm te du xoole ba mbër ne ma moom musul am. non non euh, ñëw ci làmb ji ñu ñu pour ñu téye ma ni non non parce que maanaam sama mental baax na ko hmm. waaw sama mental baax na. waaw parce que yéen am na ci yoo xam ne fukkuma quoi yóbbuwuma déedéet non ñun. yow mos nga jékku mbër. non bëri na. benn mbër nga mais doo ko ko wan quoi. léegi am nga mbër boo xamante ne yow jékku nga ko mu daan la. si. kala la Modou yaa ko mystiquement da nga ko jàppoon. Hmm. Mm. Modou Lo bi ñu duggee ci biir géew bi dafa njëkk taw dem dem ci cumukaayam ñu lakkaat bopp bi mu duggaat ci biir géew bi mm-hmm. te man làmb jooju ay tetal lañ ma waxoon ko parce que dóor mu daanu amoon na ci dóor mu daanu mais dañ ma ne bu génnee géew bi rek bu mu génn géew bi ci biir làmb ji quoi Mm-hmm. mais temps yooyu la dernière biteel amoon. waaw arrière signal ak arrière signal dem sa cumukaay. laalaat waaw bëggoon moog la dëgër. waaw daw dawaat ñëw dugg ci biir géew bi. waaw. Mm-hmm. loolu bokk na ci lu ko dimbali quoi. mais sinon nga ko dóor mu daanu ci combat waaw. que bi ñu kiiwee nii moom ci boppam ci ci ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biti moom bi ñëwee dana leen gisuma Tapha Boy Bambara quoi. Hmm? waaw xam nga après parce que booy xool li ñuy bëri yëpp mu ngi jeex nii. pour làmb moom pour jàpp. kon yow yow mi gëm nga ni gisul woon. si boobu man xam naa li ma indi ko invisible. boobu xam naa li ma indi quoi waaw. mais nag jàmbaar la champion la Modou jàmbaar la champion la parce que eh, xam nga galaaj lenn rek moo lay dimbali nga am fit boo amee fit rek da kii daal. kon gëm nga ni Modou Lo nekkul galaaj moo koy daal. Hmm? gëm nga ni Modou Lo nekkul galaaj moom moo koy daal. non non bokk na ci làmb dafa mm. bokk ci làmb mais maanaam tey jii xam nga làmb da ngay am fit mën a bëre am am am conscience bu baax am xel mu kii daal mm. waaw mais du question mais tey jii loo am am am doole doole doole nii te mënoo bëre tamit da ngay sonn mm-hmm. loo am am doole te amoo gàllaaj tamit dangay sonn làmb xala benn mënu ci dem bàyyi morom ban moo jiitu ci làmb dafa bi ci jiitu muy entraînement. li ci des. fit waaw. Ah. fit ak gàllaaj boobu jiitu. Hmm? fit ak gàllaaj bu jiitu. fit ak gàllaaj bu jiitu. Euh, da am dangay am fit. mbër hmm. da am fit ndax boo amee fit rek da ngay neex a jàppale. Hmm. waaw boo amee fit nag loolu waaye defar rek. kon gàllaaj yow quatrième position nga ko indoo. si waaw. ok damay continuer ak yow ci euh, jaar-jaar yi. wax nga ko sànq nga jógee ci calaf bi. Hmm. après calaf kan nga bëreel. waaw dañu dugal euh, dañu dugalaat ci deuxième calaf bi. yow ñëw Ousmane Diop. Ousmane Diop. waaw Kati 2. waaw ak euh, super super étoile xam nga super étoile xam super jamono. Hmm, super bi nekkoon bi nekkoon parcelle ak. waaw. mais yàlla dafa def après calaf boobu Ousmane Diop laa ci bëre après. Euh, super euh, kii dafa Malick Mbaye xam nga. dafa feebar. kati de tamit feebar. may ma ñun ñëpp ñu kii après kalaax boobu noonu la mujjee nax saay quoi. benn combat nga jot a benn combat laa ci bëre te booy xool combat boobu man ak moom Ousmane Diop. Hmm. booy xool bi muy kii nii maa ngi def nii wàcc nii moom mu may dóor ay épercule. waaw boobu suma loxo dafa wàcc. Hmm. combat bu métti la woon tam boobu sama parce que ñëpp dañ yaakaaroon dama kaaw mais kaaw ma de. Hmm. boobu loxo bi moo wàccaatoon foofu. loxo bi moo wàccaatoon ci biir kii bi nii. noonu la ma kiiyee nii après xandal ma bàyyi mu dem parce que boobu noonu parce que loxo bi moom boobu. fo indi indi na jikko. indi na jikko après après euh, kalaaf boobu noonu ñenn nga waaw après kalaaf boobu ci laa toog ma bëriwaat ak euh, Boy Bawal. Mm-hmm. bëri naa fee Boy Bawal mu daal ma. Mm-hmm. après ma jël fii euh, Pape Morlo. Mm-hmm. suñu première chute moo daan ko arbitre bi ñëw waat ñu ne kii deuxième deuxième chute bi Pape Mor daan ma waaw mu jóge fa break armé daan ma hmm. après ci laa bëriwaat ak euh, kii nu mu tuddati Mame Balla ma daan ko Mame Balla top daan ko ma daan ko boobu léegi waaw boobu ba léegi nag bëriwuma maa ngi nii toog man daal fi mu toll nii. da nga bàyyi bëri dama yaakaar ni gars dañoo yaakaar dama. bàyyi woo bañ ko wax rek. bàyyi xanaa mais kii bàyyi moom mooy taxaw ne carrément woo média bi ñëw taxaw ne leen bàyyi naa. wax nga ko euh, balaa ñëw ci Mame Balla. Hmm. defe yi nga fi wax. Hmm. nga tegale yëpp. Hmm. ba yàlla dogal nga bëriwaat ak Mame Balla. daan ko. victoire boobu. ndax dàqul kon ci say victoire. waaw man daanaka boo xool man dama amee bor ba tey Lamine bu ma war a fay. samay supporteurs man dama leen ameel bor boo xam ne man tey jii lii dama leen ko war a fay ndax tey jii man dama leen war a bégal quoi ndax sonn bi ñu sonn ci man parce que tey jii ate bor fay lañ wax moo tax tey jii man ñaan naa yàlla tey jii balaa ma bàyyi bëre dinaa bëre ñetti booy yoo xam ne wala ñeenti booy yaa dégg may leen sens hmm? samay supporteurs mun ci bëgg ma mën a bàyyi quoi. loolu loolu loolu lan nga ci jublu. loolu lan nga ci jublu. Hmm? génn ak ay victoire. waaw wala bàyyi làmb am loo yóbbaale. non non parce que xam nga tey jii maanaam tey jii booy xool làmb. Mhm. maanaam boo ciy dugg. Mhm. da ciy dugg ak plaisir. amour waaw amour mhm. man làmb loolu moom ci dugal quoi mais tey tamit ñi nga xam ni. dañuy werante ci yow di xeex ci yow naan diw ki foo toogee fii ki naan la waaye kii cinq defet la moo waaye kii nii la nii léegi yow man tey jii man bi ma bëri ma la bi ma ko daanee dama leen ba tey mun a mën a ko saa yi mu mbër waxee ne ñu ne ma yow mbër yow ci ci victoire nga jóge man leen déedéet ba tey ci defet laa toog man tant que euh, victoire yi rombul yeneen yi ba effacé ko hmm. Hmm? man ba tey man pour man fi ma toog baaxul mi ngi tey fi nga toog baax waaw mais nag loolu yëpp ko waral mooy xam nga làmb ci nekk jamono jii parce que dafa dafa mel ni lu xaw a am clan parce que ñun anciens yi dañu fàtte pour ñun dañu dañu yaakaar ni mënatuñu indi kenn ci biir stade bi wala kii déedéet ñun yàlla daf ñu dimbali Lamine tey jii boo ñëwee Tafa tey jii boo ne woon Tafa Boy mooy bëri am na amateur yoo xam ne kenn doo añee seen kër ñu ne am waxuma la supporter dama ko jël tege ne ñun ay amateur lañu am parce que ay Jili Mbay bu ñu daan bëri ay Tafa Gueye numéro 2 ay Modou Awa ñoo ñëpp ta tey jii lam moo leen fàtte nii rek teg leen ne leen mais ay champion fii ay ñoom Tidiane Faye parce que tey jii Tidiane boo ne Tidiane Faye mooy bëri wala nga ne Tafa Boy Bambara mooy bëri wala nga ne ay Lan Mané ak yooyu noonu ah, parce que stade bi day am ñoo xam ne tey jii dafa am combat yu leen di yu leen di indi ci biir stade yow xam nga loolu ma lay wax nii sax mm, mm, mm. yow amal tey bés yoo xam ne da ngay ñëw tey jii doo waxuma la supporter de mais boo xoolee tribune bi ni muy kuyee ki ay grand boobu rek ngay xam ne tey jii ñii tey jii ay ndaanaan ñoo ñëw ci biir stade bi mm-hmm. waaw mm-hmm. léegi kon pare nga pour bëre da ngay may booy sens non déggu la ma la stade yi nii kan comme kan non xam nga xale yi bëri nañ te actuellement nii eh, eh, boo Diop bu bëggee mu may ko sens. doole yamul. Lamine. doole yamul kaani du yéen goro. ah kay de kaani la. barki Muhammadu Rasulillah billahi. non tabaar su bëggee su bëggee. Eh, nga def su bëggee Boy Diop. ma may ko sens. Mm-hmm. mais Boy Diop du gone la. ah xale la. xale la waaw mais man dama koy may sens. boo Diop bu ne buñ ko nee Tapha Boy Bambara lay bëri loolu moom ndam la ci moom. Ah. Tafa. Tafa man mooy jub gone la de. waaye déggoo li ma la waaye déggoo ma man mag laa mag mu am ñam bu saaf saaf maga may du du du gune may dagg de. gone lay tëkk waaye mag lay waaw barki Mouhamed laa la wax. bu bees bi jub su jub jub moom foog ñu xoolaat ay mbiram moom. waaw euh, ñu ma doon wax euh, kii nu mu traité. Liss Ndiago. ay liis yooyu ñooñu sama ñooñu ñooñu ma ñoom xam nga du ñoom quoi ñoo samay poulain la. déet mën ngaa wax booy jub ni ba liis la liis la mais xam nga. su booy bi si tabu ngor. déggool ma la déggool ma ñooñu pare naa pour ubbi sama appartement ñëw ne leen kaay leen féexlu dama leen di taalal clim porte bi dama leen koy ubbil ne leen kaay leen féexlu ay si tabu ngor ak booy jóob ak. liis njaago liis njaago Pape njaago ci yeb képp koo xam ni pare nga tey jii demal nga seeti promoteur. ah mais lan moo tax sa diggante ak Naar Sogas tey jii war na ji benn par exemple benn Baye war naa mën a tëgg le douze. dugal la ci yàgg Naar Sogas wala mu dugal la ci yàgg Bathie Seras. waaw seen génération boobu noonu ngeen bëre. mais xam nga xam nga xale yi booy dañoo soxor de. xamme wuñu mag ak xale. déggoo déggoo li ma la déggoo li ma la. waaw maanaam ñooñu ngay ay Bathie Seras ay euh, Naar Sogas ñooñu amatuñ bëñ buy màtte. maa ngi ñoom maanaam ñoo bokk jàngoro dégg nga fi may waxee. maanaam maa ngi ñëw. waaw maanaam ak ñoom mais bokkuñu de cin bokkul safin cin bokkul safin dégg lu ma la. yàlla dama daa bu nu ñu liggéeyee asib. muy xoromee ko xoromee ko buraas. ku ko lekk dee. kon kon jeex na man maa la wax loolu.